Pastef dafa am histoire l'histoire de Pastef n'a pas commencé en mars 2021 au contraire dafa am ñu fi nekkoon di xeex pas comme niñ ko xamee en mars 2023 parce que foofu rapport de force dafa ñëw il fallait que ñun qu'on fasse face à Macky Sall et à son régime amuñu woon choix on avait d'autre choix que ça que de descendre sur le terrain comme li président Ousmane Sonko waxoon ne rapport de force la Macky Sall xam il faut que ñu imposer ko le rapport de force et par la grâce de Dieu nous avons gagné ce rapport de force comme li ma wax démb tout le moom avait misé sur la disparition de Pastef définitivement mais tey yàlla def na nous sommes là au pouvoir par la grâce de Dieu et que loolu waruñu ko waruñu ko fàtte donc li taxoon ñu doon xeex pour changé réew mi loolu moo fi nekk ba léegi tout un chacun ici incarne ko du plus du militant à la base au plus haut responsable damay dégg souvent sax ñu naan waaw dañu war a déglu la base c'est comme si ñun ñu fi nekk ñëpp nekkuñu nous ne pas des militants à la base dégg naa sax ñu wax ay nomination ñu ne non nomination yi dafa war jóge à la base mais kii ñu est à la base c'est un militant à la base kii c'est une militante à la base elle est coordinatrice <laughs> de section man je suis militant à la base ñii ils sont à la base Demba Thioum il est militant à la base mo Serigne Mor Bousso il est militant à la base pourquoi on fait la différence entre le sommet e la base xam nga loolu bu ñu demee ba di ko incarner rek ñu ngi indi benn écart boo xam ne après fi ñuy jëm baaxul fii tout le monde est militant à la base mais yàlla nag moo def mais il faut am ñu jiitu ba euh, monsieur le ministre Ousmane Abdoulaye Baro doo ma bàyyi ma fen man fekk ma fi mais man ñi fi nekkoon di nettali nañu créer Pastef ñooñu chaque fois dama leen di déglu parce que ba ñuy créer Pastef dañ waxoon du parti warul am président non du loolu loolu moo doon l'idéal ah. groupe la ñu waxoon moo koy groupe la ñu waxoon moo koy moo koy di parce que lan doon bañ mooy toujours rek ñu am cette conception de l'organisation qu'il y ait toujours un chef mais li tax ñu ko doon def idéal la woon mais. suñu suñu suñu suñu loi wu euh, réew dañ ne parti day am day am leader moo tax on a été obligé ils ont été obligés de choisir quelqu'un il faut que ñu jiitu mais il n'est pas dit ki ki jiitu forcément moo gën ñu nekk ci ginnaaw au contraire wax naa ko te man gëm naa ni am na ay militants yoo xam ni seen apport ci parti bi ëpp na doole fukki yoon ak juróom man sama apport ci parti man xooluma li may def man damay xool li ñëpp di def et comme on la plus fe la plus belle femme du monde na doon que ce qu'elle kenn ku ci ne li nga am moom moo ngay joxe dama yàgg di wax ne maire bi nga xam ne dafa joxe vingt cinq francs vingt cinq franc juróomi dërëm mu joxe ko kenn ki joxe milliard bu mu yaakaar ne milliard am boobu moo gën fukki yoon ak juróom ki ki ki jaay gàtte caaf juróomi dërëm yi mu joxe pour man sax juróom yooyu moo gën a barkeel parce que kooku loolu la am loolu lay joxe donc waruñu egg nag foo xam ni dans ce parti ngeen baal ma y a des peut-être que je vais éviter même de dire en public pour beaucoup de raisons mais waruñu toll ci parti bi foo xam ne bokk de gens se sont sacrifiés énormément de gens se sont sacrifiés démb démb rek laa la saisir ci benn cas bu ñu war a faj démb du dëgg madame madame madame le ministre nga génne ñu faj ko kooku saa yu xëyee lu muy ñaan mooy wér yaram xëccoowul dara te ba mu doon xeex xalaatul woon sax ne tey daañu ko dóor bal ba mu am problème pour faju kii y a pas ce qu'elle n'est en train d'endurer deux cent ou trois cent blessés yoo xam dañ leen war a jël en ngir yàlla xanaa tey bu ñu demoon ba lenn am loo xam ni suñu biir le choix war a am je pense que war nañu éviter yenn yi entre ñun du dugg nag ci yenn détails yi parce que nit dina toll foo xam nag aussi bu waree wax rek day wax mais man je suis un responsable am na loo xam ne duma ko duma ko wax en public. action bu ñuy poser ñun dafa war a ànd ak courtoisie ak discipline kenn waruñu xeeb te kenn duñu xeeb incha allah parce que wax naa ko démb au grand théâtre projet bii amul benn doomu aadama bu ko mën a yàq. parce que président Ousmane Sonko notre leader dafa ko tàmm di wax projet bi y a quelque chose de divin loo xam ne nag yàlla moo ci teg loxoom doomu aadama mënu koo yàq ak fu mu mënti jógee. man de sañuma taxaw wax fii ne je représente quelque chose d'extrêmement important dans ce projet du ma ko mës a wax je ne représente absolument rien dans ce projet man par rapport ak. des millions de gens qui ont un espoir pour que ce pays-là change yàlla moo ci teg loxoom pour man dañu war a góorlu le défi que devons nous lancer nu même mooy naka la ñuy def ba Sénégal ñu développé ko à travers nos comportements et notre implication le don de pour la patrie boobu ñu doon wax moo fi ne ba léegi te moo fi war a ne ba léegi te moo fi ne ba léegi man benn référence la am en politique mooy le président Ousmane Sonko aw ma beneen référence en politique c'est ma seule référence en politique ci moom lay xool ci moom lay roy act yu muy posé ci lay xool ci lay roy te damay ñaan yàlla de xëy na mu ma jël tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti ci ay jikkoom man tuuti rek lu mel ni atome lay ñaan yàlla ma jël ko ay jikkoom ci politique musuma gis quelqu'un d'aussi désintéressé que le président Ousmane Sonko musuma ko gis en politique musuma gis en politique man damay dama gëm ni man bëgg naa sama réew man man loolu laa gëm xëy na sax maa ko gën a bëgg président Ousmane Sonko su ma toogee xalaat mais suma ma gis lu muy daj gëm naa ni moo ma gën a bëgg Sénégal parce que sacrifice bi mu def man defaguma ko quelqu'un qui a tout laissé pour son pays sooy toog seetaan image yi li mu daj bopp ba léegi mais da naan mais kii ban façon nit la mais ñun kooku war waruñu ko décevoir dañ ko war a taxawu dañ ko war a jàppale parce que bu bëggoon dara ma nga toog impôt ba yor ay milliards am yàgg nañ koo wax amul luñ ko promettrewul ci àdduna man j'ai vécu des expériences personnelles man ak moom du ma ko nettali fii ci loolu laa jàpp ne kii nit gënu ko ci politique ci Sénégal nañ jàppale suñu leader yi le président Bassirou Diomaye Faye mu ngi fële bu ngeen ko xoolee da ngeen ko yërëm vous avez vu ce qui s'est passé keroog PM bu mu defee le gouvernement bi ñu defee seen seen point de presse bi est-ce que les gens sont conscients ci gravité situation bi dans ce est-ce que les gens en sont conscients man fàtte naa sax investiture yi depuis démb quand le président Ousmane Sonko le président a parlé fàtte naa investiture bëggatuma sax bokk ci liste man actuellement nii parce que li ma gëm mooy le Sénégal mu ngi ci foo xam ne tey jii nii ñi ngi xëccoo loo xam ne fii ak ay mois bu ñu góorgóorlu ñun ñëpp def unité autour du premier ministre Sénégal day suux te ñun ñoo ko hérité suñuy loxo lay suuxee alors que du ñun dañ ko fekk vous ne vous rendez pas compte de la gravité de la situation apparemment non non non man su ma amoon lu may ndogal man ci réew mi ak situation bi am nii ah, non pour man sax dañuy arrêté ay élections législatives ak yëpp ñu woo ah ñu woote à un sursaut national sénégalais yëpp génn. ñu def un appel à à à à collecte xaw ma lan kër gu ne 1000 francs 2000 francs 3000 francs le budget du Sénégal ah ñu woo tous les Sénégalais ñu génn ko seen loxo pour jàppale ces gens qui sont au pouvoir parce que lii ñu gis barki démb. bu ñu ci jugul ñun ñëpp ñu jàppale suñu autorités yi non ragal naa ne duñ ci génn man maa leen ko wax man je suis conscient de la gravité de cette situation te ñii nekk fii kii nekk directeur fii ak yeneen directeur bi xam nañ Sénégal fu mu toll on doit faire bloc autour de ces questions là plutôt ko leneen leneen lu ñu def lu dul loolu ñu ngi perdre suñu temps élection législative yi léegi mu jeex 165 députés la ñuy tànn 165 la ñuy tànn ñëpp mënuñoo nekk député impossible man de waat naa ko ci alxuraan tey bu ma gisee fii ku ma gën a bokk bëgg bëgg bokk bëgg bëgg loolu sur le saint coran bu ma wóoree ne bu ma ko joxee mu def mieux que moi à l'Assemblée nationale ma jox ko je pense que c'est comme ça qu'on doit raisonner l'heure est très grave comme à l'habitude de le dire mon frère Ousmane Fall l'heure est très grave faisons bloc autour de l'essentiel. Si on la majorité à l'Assemblée nationale, tous ces criminels-là, la ici, ils lever cette immunité parlementaire, euh, ils ci justice. Les projets de loi, a am. nga war a xam Ils war nañu changer réew bi yooyu yep assemblée lañ ko mëna défé mënuñu ko defee fenen benn objectif lañu am c'est avoir la majorité à l'Assemblée nationale jox ko le président Bassirou Diomaye Faye et à son gouvernement le premier ministre mais nak seen ne sera pas maa ngi koy wax fii di ko waxaat wax naa ko sama sœur démb moom sax moom bu ñëwee assemblée moom bu ko neexee sax ma feccal ko dinaa ko tàccul mais seen ne sera pas pour avoir une majorité pour mécanique boo xam ne ku ñëw rek ñu tàccu la beneen bi nañ nañu bàyyi leen na responsable du jël seen téléphone mais quand même mais nit mënul yor toutes ces charges là fu mu toll di wuy téléphone man mii li may daj ci téléphone bi rek par jour damay jéem sax mënuma ko kii laaj ko biñ ko defee ministre ba léegi laaj leen ko ndax woo naa ko deux fois ou trois fois laaj leen ko parce que xam naa li muy daj dama koy yërëm lu ma war a régler dama koy régler te moom du ko yëg parce que xam naa ni mënul passer tout son temps à répondre au téléphone ñii dañoo sonn ñun kay fi ñu leen di woo mooy li ñu leen doon doyee nañ ko def rek mais nañ leen yërëm yenn saa yi nit dalee woon c'est très nga tiit woo ko mu wax la loo xam ni finalement sax da nga di su may goon du ma jël téléphone bi nañ ci nañ leen ci dimbali nañ yërëm suñu njiit yi c'est extrêmement important